tey dafa am lu ñu dal lu metti ñu koy jaalee suñu mbokk chauffeur yëpp comme muy Amadou Sow doon chauffeur di liggéeyandoog ñun ci port bi mu ñàkk bakkanam li ko andi nag manquement yu métti yi nga xam ne nekkee nañ ko au niveau du ba nga xam ne mën nañu jural fatiguement général ak ñàkk lekk gu métti gi ak lekk-lekk yu baaxul yi ñu moo tax tey jii loolu dal ko te loolu yàgg nañ ko nemmeeku au niveau du port fii yàggul dara fii ci plateforme bi daloon na fi benn chauffeur mu mel ni tey infrastructure port moo moo doxul lekk gi ñu lekk ay poson la ndax suufur bi fiy nekk ak tamraax bi nga xam ne tey

métti li ñu lay fay par salaire yow da nga koy rationné maanaam moom ngay dundee bu weer deewee da ngay am problème pour location tout moment da ngay jàpp ne yow ne ci port bi rek moom mooy tax nga mucc occasion la nag ne ñoom ñoo ñuy exploité dañ leen di xaar pour ñu indil ñu solution sonn nañu yàgg nañu yooxu nag ñu ñuy waaye nañ xam ne ci njaboot gi lañ b nañ ñu wallu te ñëw jàppale ñu jéem ñoo dimbale génnee ñu ci yi nga xam ne safari ñu ngi koy dund autorité yi ci am compétence nañ ñu dimbale ngir am solution